ñu lay tàllal loxo bu baax a baax di la dalal jàmbut ci biir parti bii nga xam ne fi nga dugg mu nekk naam parti bu nga xam ne bariwul ay at waaye mu nekk parti bu nga xam ne tey ràññee nañ ko ci biir espace politique bi mu nekk parti bu nga xam ne tey département boo dem commune boo dem yaa ngi fa fekk ay représentant ñu taxaw moom taxawaay bi nga xam ne war na ko am ci biir ci biir askan bi mais nga ñëw ci jamono bu nga xam ne Marème jamono waajal élection locale la

jamono jii la ñu toll pour bindu jamono jii seet leen ñi nga xam ne seeni carte d'identité def ñu mënuñu woon voté ngeen fexe ba ñu voté ñi nga xam ne dëkkuñu woon Dalifort bëgg faa ñëw voté si ngeen fexe ba ñu mën a bindu ñi nga xam ne i tamit ay primo votant lañu ngeen fexe ba ñu mën a bindu loolu jàpp naa ne mooy mooy liggéey donc maa ngi leen di ñaax mais di ñaax aussi waa bennoo Bokk Yaakaar yëpp waa coalition majorité présidentielle yépp bu gaa yi di wax ak di discours nuñ nañ nekk ci li am solo li am solo mooy nañu ñaax suñu militants yi ñu dem bindu nañu ñaax suñu responsable yi ñu encadrer militants yi ñu dem bindu parce que élection yi léegi lañ leen di gagné kenn du xaar ba bis ba ngay soog gagné bis bi ñuy bindoo jamono bi ñuy bindoo foofu ngay góorgóorloo bind ñi nga war a bind liggéey li nga war a liggéey bañ ko boole ak wax encadrer militants yi ñu bindu

su élection yi ñëwee ñu gagné ko proprement fenn fu nekk ñu teg fa maire bu nga xam ne dana nekk à l'écoute des populations maire bu nga xam ne dana xam luy soxlay population yi maire bu nga xam ne lam man dina ko def pour jàppale population yi kon gëm naa ne fort pour delsi ci sama sœur agsi nga fi nga waroon accès ñun nag daañu la boot daañ la rogganti ndax suñu mbootu nag yaatu ni te dëgër la te incha allah daañu la boot daañ la rogganti ba yéene bi nga am ci Dalifort yéene bi nga am ci Sénégal parce que bul jël rek sa bët ak sa potentiel nga bëgg ko yemale ci Dalifort sa bët ak sa potentiel yéegale ko fa ëpp Dalifort yéegale ko fa ëpp département Pikine yéegale ko sur le plan national pourquoi pas même sur le plan international parce que le potentiel soo ko amee da nga koy éclore donc lay lay sant choix bi nga def doo ko rëccu gëm aussi ni ma ci yow du ma ko rëccu di ko jàppale ngeen dem ci mag dem ci xale yi dem ci ak Sénégal département Pikine gën a yaatal yeesal ci biir commune u Dalifort